dañu koy dooree mbirum Ousmane Sonko dal di nay taqate suuf li ko waral kan moo di nee nañu bu ñu amul sens danañu ko jéem a attewaat ndax sus bi nee nañu li mu attee dañu koy dal di taqal suuf loolee ba tey ji jaaxalul lool ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu atu politique fële ci réewum Sénégal seen xam-xam màcc ci lool bu ñu sukkandikoo ci Dame Mbodj moom mi nga xam ne remmee ko nañu ab xam-xamam lool fële ci réewum Sénégal yëkkati na ay kàddu di ci wax mbirum Ousmane Sonko mënatuñu ci dara Ousmane Sonko sax moom ci boppam mënuñoo nekk ci réewum Sénégal Sénégal ay élection yi ñu dëkk fi dabal te bokku ca loolee ñoom ñi nga xam ne ñooy organiser élection yi ñoo leen ko gën xam foofu jëlul kenn di ci tiit mbaa kenn di ci raf mbirum Ousmane Sonko leer na ba bari day bokk te bu ñu amul sens sax muy gagné réewum Sénégal atum 2024 kaddu yu dàmbooj moom mi nga xam ne sax nee na yëgle na ak candidature am atum 2024 bokk na ci ñi nga xam ne dañuy xëccoo réewum Sénégal atum 2024 ndax day jàppale Sonko di ko nëbbu dara